jërë ngeen jëf mbokk yi topp 24actu point com am nañu mbégte ànd ak yéen ci seen invité de la rédaction te nag dinañu ànd ak Khadim Gueye sopp na bi nekk koo xam ne itam day yëngu ci wàllu politique nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba waaye bokk tamit fi nga xam ne nag moo di APR di parti njiitu réew mi Serigne Khadim gannaaw ba ñu la nuyoo ma bàyyi la nga nuyoog ñi nga xam ne ñoo lay seetaan ci 24actu point com. asalaamaaleykum euh, jërëjëf Serigne bi ñu ngi leen di leen di nuyu rawatina waa Sénégal rawatina ñi féete tuubaa ñëpp mm-hmm. euh, mboolem xalifa yi nga xamante si ne ñoo fi nekkal njabootu suñ Touba bi li ko dale Sëriñ Muntaxa yàlla na fi yàgg loolu ci wér mm-hmm. ak mboolem xalifa Serigne Cheikh Jëmmu Fall waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem Cheikh Serigne yi ba si buntu kër gii nu féete yaakaar ko di buntu kër Cheikh Ibrahima Sall Ndiaye mm-hmm. mboolem fu buntu kër nekk rek te yaakaar Serigne Touba. ñoo ngi lay fekk fi nga nekk di la jox sa wàccuwaay di la nuyu bu baax baax a baax baax di la ñaanal waaye di sàkku si yow ñaan di ñaan yàlla defal na jàmm si barke surtout boo ñu dikkaloon rek kan mooy ci lu gàtt rek lan nga ñuy wax waaw suñu xaadim su xeeb xam ne day ndaw dëkk fii si tuuba waaye lu jiitu muy am kër biir Touba Mbàkke la yaroo si buntu kër sëñ Omar Diop sëñ Mora bi moom sëñ Omar Diop yaa ko ba def ko mu mel ni mu mel mu doon koo xamante si ne nag ab ràbb la di kéwal bokk si kéwali sëriñ Touba yi waaye gis-gisam yàgg a doon moom daal dafa war a bokk si ñi nga xaman si ne dañuy dimbalee te yàlla rek tax ak jëmmi sëriñ bi Euh, di xool ñi nu tane di leen dimbali loolu daal moo ñu ci politique. Hmm. ñu tàmbalee ko woon suñu Xalifa Diop ak euh, monsieur le maire ba woon hmm. euh, Ibrahima Gueye di Ibba Gueye yal na yàlla dolli leeram. taas na si barkeem si barkeem suñu Touba. Hmm. fa lañ ko tàmbalee ba ni nu yegg see fii si Touba. voilà jërëjëf sëñ Khadim lan moo tax ngeen nga choisir nekk fi nga xam ne nag moom moo di PDS tàmbalee fa sa liggéey. waaw li tax ma choisir PDS PDS moo ma sopp ci politique bi bëggee bi may ànd ak moom président Abdoulaye Wade lay ànd ay at nu ànd ko ci biir PDS lu nu mas xëccoo rek euh, mu jël ndam la ba ni mu ñëwee ci Pape Diop ba yàlla def li gën mu wuy ji suñu borom ma taxu ci dëkk bi nag di Touba. samay sëriñ jox ma fi wàcc waaye jox ma daara ma ne fa ak sama waajur ak sama ak sama famille daal. voilà lan moo la génnee PDS nga dugg APR di parti njiitu réew mi. waaw ah, nag li ma si génne mooy euh, bi ma toxoo Touba 2006 ba 24 bi may wax le 3 bi may wax sax wax génn ma ko muy bi ñuy tàmbali élection yi. li tax ma génn koy du lenn lu dul dama si nekkoon bëgg ak yéene ak gëm-gëm ak engagement ak bëgg maître Ablaye Wade taalibe Sëñ Tuubaa boobu di ànd ak moom waaye di ànd ak euh, président maître Madické Niang ñëw gi mu daan ñëw si Touba ñu takkoo ba mu def ma doom ma def ko bàyyi ba doomam sax tudd naa ko doom di maam yaa si ñëw mm-hmm. ma nga sa kër ga di mm-hmm. yeewu mm-hmm. waaye li tax ma génn nag mooy mbir bu fekkee da nga koo bëgg doon ndaw te am si lenn loo yëngu amaana xëy na ñi ñi la xam ñëpp loo bët yooyu rek la ñuy xool si yow muy bëtu géwal ak géer euh, duñ la mas a def responsable lan lay def mooy. dañoo loolu lañ doon doon xoolee. waaw léegi lan doon xool nag mooy. kii géwal buy ñëw si ñun rek la xëy na su fekkee danoo dem si mbooloom buñ fa defee benn cinquante mille benn cent mille déwénati nañ ko soxla baawee laa ma dem si ñoom ñu yëkkat dix mille franc quinze mille jox ma ma gëm ne nag lii mënuma si continuer te du ma si continuer li may continuer mooy fexe ba fépp fu ñuy séddalee li nga xaman si ne moom la ñuy defee Sénégal ma fay dem ñu may jox suma wàll ma koy def su sañcaan di ko def ñëpp pourtant euh, bi ñu gëstoo ci yow gis nañu ni ku am mbooloo nga maanaam am na ñu bari ñoo xam ne dañu topp sa ginnaaw foo foo jëlee ñooñu. waaw ñooñu nag man maa am lu jafe si biir Touba man naa ne si biir Touba li ma fi am man kese maa ko am keneen amu bokk doon waxee ndax damaa ñibbi sama pencum sëriñ nee naa la gox bi ma dëkkee juróomi gox yu taqaloo la juróomi gox yu taqaloo la yoo xamante ne fenn fu si nekk la fa yeewoo bari na lool. ëpp lu maanaam benn gox ëpp leen lu fa yeewu muy diggante Aliya Njaane marché xayma yi asaleen de ba mbusoo bi ba Medina Sarr bi nga xamante si ne fi la nekk di jumaa ji ngeen gis ci vidéo yi euh, ñu am yéene mu yëkk bi ma dikkee nag samay sëriñ ñoo ma samp ñoo ma ñaanal ñoo ma dooleel jiital ma te maa fa gën a xeebu gën faa doy bi gën faa niiga waaye ñaan gan ma ñaanal moo tax samay bàyyi topp sama ginnaaw samay waajur topp sama ginnaaw mbootaay ya fa féete yi ñoom ñëpp xooluñu si man dërëm dan maa bëgg te jëm yàlla ji rek tax fonk ma jëm yàlla ji rek tax ñoom bëgguñu ma sàmba bëgguñu ma demba man la bëgg man lan xool fu ma xool la xool fu ma xool xoolu euh, bi nga ñëwee fi nga xam ne nag moo di APR ci kan nga boot woon ci ginnaawam di liggéey waaw bi ma ñëwee APR nag bootu naa si ginnaaw àll si waaw mais booba dafa am lu nu boole dama nekk PDS mu am yéene ma ànd ak moom ba tax commission bi bi mu jotee muy bindum carte d'identité yi moom xam na li nekk sama ginnaaw mu jox ma ko léegi diir bi mu ma ko joxe ba mu jàll taxawlu na man ma taxawlu ana lan moo ko waral mooy man politique fa suma yéene comme ñu bari ngeen koy defee ñu di ko defee leader bi la yàlla booleel ngay ànd ak moom guddi ak bëccëg saa bu amee dix mille may la bu amee vingt mille may la man bëgguma loolu man da may war ni ñuy nappee jën boo nappee ma napp. kon daal da ngeen a bokk doon gëm-gëm su ma la déggee. waaw moo la tàqale moom. looloo ma tàqale woon ak moom hmm. mais instant bi bi campagne yi ko gisee nag. Hmm. toog nan waxtaan nan maa ngi moom. déggoo waay. toog nan waxtaan. est-ce que déggoo ngeen. instant bii hmm. ndax waxumal. fu mbir yi bañ fu mbir xam nga fu mbir yi hmm. mooy ci moom la. moom daal waaw. ana nan la ci bañ mooy. Hmm. nit bu la bëggee jox boppam. yooyu itam da koy jox sa bopp. nga jàpp ni moom jox la boppam. xam nga waaye nit ku baax la hmm. nit ku am engagement. Hmm. nit ku bëgg président Macky Sall. Hmm. ndax bi mu gisee ma def sama déclaration. woor na ma. ma ñëw mu yëkkati cinquante mille francs. dama naa la ko jàppale. cinquante mille tuuti wut ci leader yaa bu toll ni yow. am duñ ko ko xeebal ñu bàyyi ko ah, noonu. non du ko xeebal. du ko xeebal si biir campagne yi. sama café bi ma mujjee def waaye certes yow li nga soxla ëpp na cinquante waaw même même en même temps dem su ko bim defee loolu ba pare si biir campagne yi biir campagne yi bi may def sama café bu mujj dajale samay mbootaay yépp yónni la doomam Moustapha Sylla Moustapha Sylla dikk fa bi ma accepté sama jigéen ña fa nekk ëpp na lu man ñaar fukki mbootaay ak nangam yëkkati na benn cinquante mille may leen. léegi nag cinquante mille yooyu. xeebaluma ko de mais dama dul d'accord di ànd ak leader bu demee si benn gox attan faa joxe un million cinq cent mille bu dikkee si man di joxe ay cinquante mille cent mille deux cent mille. ah loolu kay kon bi nga déggee mooy lan la ñu wax da nga koo xeex. bu baax noonu la demee te nag dëkk bii nu nekk mënees na maa ëpp daraja mënees hmm. na maa ëpp ay hmm. moyen hmm. ndax ndaw laa damay door a jóg hmm, waaye bu dee base politique bu tax ñuy wax base politique am naa ko tey hmm. yaakaaruma ko mu gis nañu ne élection yi euh, donte APR gagné na ko maanaam njiitu mi gagné na ko mais gis nañu ni parti bii di APR ay jafe yoo xam ne da koy dund rawatina nag fii ci diggante Touba ak Mbacké euh, loolu lan ngañ ci wax ak yow fonds yi nga xam ne dañ ko doon joxe xëy na pour campagne bi est jotoon ngeen non man ba fii may wax ak yow amul benn responsable boo xam ne yaa ngi si biir Touba doon gis samay activité nga ne Xaadim de xale la boo xam ne naa ko woo téléphone encouragé ko naa ko woo téléphone jàppale ko sotti biir. kon boo doon jëlee xaalis bi nga defee activité yi. ah samay lijjanti rek. Ah, lijjanti saa biir. ah comme ni nga lijjantee jamono ji lan dëkk. mais déet mais xëy na danga naan ma mën xëy na damay liggéey pour am lii wala pour am laa mais en tant que responsable est-ce que amul kon ñu nekk ci suuf di la financer. xëy na. xëy na non déet cest man da man maa la posé question bi xëy na dañu bëgg ñi nga xam ne ñooy seetaan mu leer ci seen bopp donc comme responsable yi joxuñu la la ñuy laaj yow fonds yooyu fan nga ko doon tiire xëy na xëy na mais xëy na moom du lu leer moom <laughs> xam naa ne ba léegi nangu wax euh, loolu. voilà voilà. am na loo xamante ni yëf biir la. yëf biir la am yoo xamante ni yëf bitti hmm. li nu war a waxtaane si biir rondal. Hmm. dañ ko waxtaane si penc. Hmm. mais say activité moom yaa ngi ko doon def ni mu war sans problème te amoo woon benn. maa ngi ngi doon def ni mu waree. bu baax a baax a baax a baax. waaw benn responsable jàppale wu ñu. ay Pate dama koy ziar baax di ko ñaan moom itam bi may def sama caravane. di ko def tàmbalee sama gox ba biir Mbàkke euh, jaar naa këram ak sama mbooloo bi ma àggee moom itam wax dëgg yàlla mu ci ab som jox ma ne ma maa ko jàppalee loolu nag loo ko defal da koy sant ak di ko ñaanal ba pare wax ma ne danaa la jàppale danaa la sotandir hmm. wax dëgg yàlla ndax ndaw la bu loo xam ne yomboo si biir Touba. mais na joxagule ci oto yi ñuy jox. oto yi nag joxaguma si. Hmm. waaye nga ñaan rek ñaanal fi mu ne sonn naa lool si hmm. na la loolu dañuy dañuy may justement ci Touba ak Mbacke gis nañu ni euh, wàllu politique maanaam système bi fi nekk ni lu lu lu war a seetlu defaat seetlu la. Hmm. ndax. sept boo ko àndeek président muy wut dara sa biir kër te loolee mënu ko am war ngaa taxaw def lu seetlu xool sa staff surtout yow seetlu nga def man seetlu bi ma def mooy responsable yi fi nekk baax man de ñu gëm liggéey bi la ñu am yéene la waaye amaana xëy na staff yi rek mooy yàq lu bari. foofu la jafe-jafe bi la jafe-jafe. est-ce que tamit am nañ compétence bi. dañ ko war a am nag ndax tey jii ku ne responsable nga waroo dajale lu mat trente personnes ñu wër la rek nga wóolu leen cent pour cent yow itam ni nu amee ay bët am ay nopp noonu nga ko amee yow itam war ngay xool toujours ci internet bi booy xool ci internet bi da ngay gis xaadim moo xamante si ne xëy na. wala keneen ku nekk fële moo xam jigéen la moom ma nga nekk si goxam di góorgóorlu te li la président sant kii de ma sax nga dem jëleli ko sa bopp si loo xamante si ni du am intermédiaire direct lay doon. direct lay doon voilà yow jéem a jéem a fi woon a jege soxna maam Xari Mbacke. soxna maam Xari noonu. Hmm. noonu. ñoo maam Xari maanaam mënu wax si moom dara. xam nga lu ko waral. Hmm. mooy toogu ni miinante. ndax daaw doxoo woon ci doxoo woon ci maa ngi ak numéro am. samay activité doon naa ko envoyé. Hmm. PV. Hmm. mais mosuma wooyu te dem naa ba man fi ma toll du dem si benn bureau di fa rang war a am nu ma liggéey dikk naan la man maa diw wala baaw ilaa mën na maa dikk bëgg laa gis sax hmm. mais ñi la sës. buñ ma xañee si jëmm. révisé bu weesoo moom xarit beneen jigéen muy euh, première dame Marième Faye Sall ban relation ngeen am. première dame nag. Hmm. dama koo gis muy ku ma neex. Marième naa ne bu ma duggee si parti bi. Hmm. parti bi bu ma ci duggee ba tax may liggéeyal président Macky hmm. première dame. te ba fii may waxe ak yow. mësuma ko gis. ah bon non. mais ni ngi déggante. déggante wuñu gisuñu waaye damaa gis muy soxna soo xamante si ne nit ku baax la ma gis ni muy jàppalee borom ndax nag ñun demuñu téeméeri réew waaye fëgg nañ téeméeri buntu kër te buntu kër buñ si fëgg lu baax lañ fay xeeñ ma gis ne ku am yéene la si biir Sénégal rawatina kuy def social kuy kuy dimbalee te yàlla rek élection yi danañ ci dikkaat danañ ci dikk gis nañu ne nii bu dee affaire mu dañ leen fee bàcc ban commentaire nga ci def. waaw dañ ñu fee bàcc. loolu moom àdduna kon nangu nga bàcc. nangu naa ko garaawul. Hmm. garaawul loolu moom. Hmm. moom àdduna moo waral bàcc yi. responsable ñoo liggéeyut wala mbir yi ñu nekkul fa ñu war a egg. wala mooy li ma la wax rek mooy li ma la wax rek. Hmm. xam nga waa Touba ñoom benn xol la. bu ñu xasee jéem gëm dara bëgg dara loolu il faut nga jëm ko dindi seen bopp dana métti lool nag. lu nekk ci bopp lu nekk lan nga jàpp ne sax moo nekk ci bopp yi. mooy xëy na li ñu jàppal président Sall. Hmm. si départ ba. Hmm. muy la ñëpp ay citoyen la. te ba koy wax xëy na waxewu ko pour xeeb suñu sang hmm. si. waxewu ko pour xeeb suñu sëriñ si waxewu ko waaye médiatiser moo média moo moo garaaw mm. fi mu ne da wax benn moo nit ñi aj ko aj ajal ko mm. ba mu tas àdduna mm. fekk yow la waraloon nga di ko wax sax du foofu xëy na loolu rek bokk na si li ko yàqal li ëpp ak ñàkkam daal ci Touba loolu nga jàpp ne moom moo ko waral lan moo war a nekk seen taxawaay pour que ñu mën a gañewaat Touba suñu taxawaay daal mooy gis nan ne ni muy defaree Sénégal si département yi si région yi yëpp ma ngi koy defare biir Touba ndax biir Touba ku fi dikk toujours mu wax ko gis assainissement yi mu fi def ku fi dikk ah bu ko def ko koy def waaw mais buntu meer bi sax day taa nga ne ma ne Touba bu tawee buntu meer bi sax day taa kon assainissement bi est-ce que desul ñu digg nit ñi tamit hôpital niveau 3 ba léegi Hmm? loolu loolu lépp la loolu lépp lu ñuy réparé la. Hmm. lu ñuy réparé la. réparé ba xam nga xam nga li li ma leen defee di ci réparé moom mbaa du. dama lay wax hmm. dama lay wax. ndeem laa la wax Moodu Moodu bi nga xamante ne mooy dem France bàyyi njaboot fondement këram ak kër ga di doog a noppi la koy may mooy ñàkk saa yàqam ci dara yàqamti wuñu si dara xanaa xëy na assainissement bi mu dugg seet am na si barab yoo xamante ne comme noonu nga seetloo mm-hmm. foofu taanoon mm-hmm. am na yoo xamante ne boo ko seetloo daana taatu taatu mm-hmm. am na wala amul am na foo xamante ne boo ko daan jaar yow sa xol day bon mais léegi sa xol day seet am na wala amul noonu la demee léegi nag noonu lay def étape par étape. Hmm. étape par étape. Hmm. mbedd par mbedd roq par roq. Hmm. ba mboolem nu mu war a def Touba rek. lépp mat. voilà ah, ñu def si gis nañu ne président gannaaw bi mu gagné élection yi ci cinquante huit virgule nangam pour cent euh, jamono ji nag mi ngi woote dialogue euh, am na ñu lànk ne duñ wuy ji lan nga leen di wax. loolu nag moom xëy na seen xel moo tollooguñ foofu rek ba ñu nu de. seenum xel moo toll bi ndax damay wax ne man nit ku nekk fam xelam yam fa lañ dafa tàmbalee gis nga opposant yi fi nekk lu baax la hmm? ñu bëgg Sénégal lan sëñ bi bëgg sa réew moo tax moo lay jaral nga rayante moo lay jaral yow talatoo lekk talatoo naan talatoo dara. est-ce que seen intérêt nekku ci tamit. ma ne est seen intérêt nekku ci. bopp rek da leen di jaral ñu sacrifier ñeneen ñi. si doon rek intérêt personnel la. Hmm. lu si doon rek. Hmm. ndax nit lépp lu mu yëngu. yaakaar na dundal si ay doomu aadama. Hmm. mais yaakaar na ne war na sa mën a dund dund si ay famille. defar si ay gox. man li ma tax a dugg si politique wax naa la ko. man bu ma neexoon mën naa may yem si woyaan yi. ñu may teral may yemale sama waaye dama bëgg sama gox bi ma dëkk ak sancaan yi nga xam ne ñu si biir tuubaa lu nu manqué woon mm. te manqué woon ko si biir gouvernement bi mm. si biir état bi yàlla jaarale ko suma jëmm ma mm. xam naa waxtu bi jeex na ma jox la rek nga tàggoog ñi nga xam ne ñoo la duñu seetaan waaw jëf ñoo ngi santaat bu baax di la gërëm bu baax di ñaan seen internet bi yàlla gën a yàlla gën a kawe nag 24 bii daal ñoo ngi ñaan si barke Sëñ Touba yàlla na gën a kawe si mbooleem site internet yi nekk ci biir àdduna bi yëpp mm-hmm. ndax nit ñu baax ngeen mm-hmm. nit ñuy jàllale média ngeen te du ngeen débarti mm-hmm. loolu nag fi ngeen teg seen tànk foofu rek la Sénégal sunu gaal la noo ko bokk kenn mënu koo xar ñaar nanu joxantawaat loxo baalonte àq saafonte xool nag biir cinq ans yi lépp luy defar Sénégal ñu ànd ko euh, président El Hadj Macky Sall loolu maa ko njëkk a tuddee. El Hadj Macky Sall maa ko njëkk a tuddee soxna Marème Faye Sall it maa ko njëkk a tuddee ajaratu Marème Faye Sall ndax dem nan maa ko siyaare ji yonent bi kon man du ma soxor dama leen di wax alaaji ñii ma leen ajaratu loolu la yàlla dogal léegi nag ñu maase booloo doon benn tàppe xol yi eh, ànd di xàccandoo di dóorandoo lépp luy defar Sénégal bi nekk fa te bañ a xiiroo bañ a ngaayoo nga xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ndam li biir Sénégal la woon ndam li dellusiwaat na Sénégal ab Sénégalais ay Sénégalais ab moo ko gañewaat ëllëg ak si biir ñi doon xëccoo di yàlla mën naa indi seen cër te incha allahu rabbi nan ñaan dund rek ah, kontaan nañu trop di bég lool di ñaan yàlla defal mu jàmm si barke jërëjëf Khadim Rassoul Gueye moo nekkoon sunu invité de la rédaction sant baara mi nekkoon ci caméra bi Baye Sall soxna Asusi la di leen jox daje incha allah ci yeneen i jotaay jërë ngeen